am na solo euh, dima samedi ñu jëm. Mm-hmm. mu ngi am combat bu mag. Mm-hmm. dox ci diggante xoyantaan ak Baye Mandione xam naa foofu la ñuy mujjee. Mm-hmm. Euh, dimanche bi Gibson production mu ngi organiser ñaari xale yoo xam ne ay ndaanaan lañ. Saba xale bi nga xam ne mooy Mathia Pereira. diggante xoyantaan ak Baye Mandione noo gisee làmb jooju. waaw dafa doon combat bu am solo li tax mooy dafay gën a dëgëral lien wu Sénégal Gambie. Hmm. ndax ku ne xam na ne Sénégal ak Gambie ay doomi ndey lañu. Hmm. donc su Baye joon jugee Sénégal dem bëre ji Gambie. Hmm. xoyantaan war a jugewaat Gambie ñëw bëri si Sénégal. donc ñun li ñuy def rek moom dalal ko. te xam ne dëkkam ci la ñëw ñoom ñaar ñu bëre que le gañ beneen bi ci des mooy signature ba fay am. ñuy ñaax ñëpp. làmb ji Modou ak amaa Baldé la. supporters yi war nañoo mën a bokk fenn fu ñuy toog. ñu signé buñ paree dem ndax bis ba dara du fa xew. Mm. dañuy signé rek buñ paree ñibbi. Mm-hmm. boo xoolee nag làmb mos naa dégg ci benn interview Tyson ne feeg demuñu. Mm-hmm. ba man koo def sans pour autant police ñëw. Mm-hmm. rek ñun réussir guñ suñ pare. loola nag ñun ñi ci si biir war nañ ci góor góorlu di ci waxtaan ak xale yi di sensibiliser mbër yi ñun ñi nga xam ne ñoo yore xale yi ba tey am na ci wax joo xam ne soo ko waxee. Mm. yaay créé tension. Mm. donc dalalal ki war a dalal nay dalal. Modou loo mooy may Ama Baldé xaalis bu ca fayee ko cent vingt millions. Mm. su Ama Baldé bëriwutoon ak moom du ko fayee ko. su faree cent vingt millions su Modou Lo moom du ko fayee ko. Mm-hmm. nit nag soo xamee ne kii mooy sama trésor dama koy protéger. Mm-hmm. mais suñ ko gaañee doo bëri te boo bëriwut doo jël reliquat. Mm-hmm. kon nañ protéger pro na kenn ku nekk protéger sa morom. supporters yi ñëw ci dal ak jàmm ñoom ñaar bu ñu waree bëri dinañ bëri que le meilleur gagne. waaw xam nga Jibson production dafa bokk ci Kandji production. Hmm. ndax ci famille bi la bokk. Hmm. muy ku baax. Hmm. koo te ne ndeysaan nee naa ko bul jaaxle bul sonn ci sa benn événement. ndax nit ku ci nekk sa xol la la yàlla fay. dëgg la benn part daf maa was ne ma. àdduna bi ñu toll man waa mu ne basang na ku xëy yàlla la la sa xol nga di ci dox. noo mel noonu la sa xol di mel. moom dafa baax yéen a ñëpp jàmm ba pare nag tar bi tarbiya wu làmb daj ci coono bu nekk ba tey mu mën a tëgal boppam. Hmm. kon dañ koy ñaanal yàlla defal ko ci jàmm ci bis ba. Hmm. ñaari xale lañ nag yoo xamante ne bii ku ci daan yéeg. ku ci daanu fekk ci say morom. ñoom ñaar maa la ko wax ku ci daan. Hmm. bàyyi fi say morom yéeg ci kaw. ku ci daanu nag desaat say morom. kon combat boobu dina metti dina yàgg ndax Jibson production su organisé ñun ñëpp dañu ñëw toog kon dara du yomb. incha allah